Baay Faal yi sant leen ki raw ci penku raw bépp wet moom ngeen ni sax di sàkku Baay Faal yi sant leen ki ci penku raw bépp wet moom ngeen ni sax di sàkku Cheikh Ibra Fall ku ci moom du daanu ku bañ daanu wéeru jil ku maanu du daanu moo gën a dëgër yu déer yi moo yor saxaar yi daw di teer ci gaar yi moo moom lu baax ku bëgg mucc gëm ko lay sun xi daaw ku bëgg a xal ku mooy ko baabul murit ku bëgg jàll fëgg ko mu ubbi sa bunt nga jàll awe ko aboo rijaal ku réere laajil góor ña nda góom la mi mu teg ca doqi gaaña laajal ku xam yow boo xamul kuy siidi ibrahima faal nga xam ne góor mooy siidi ka jolli leeral yoonu seyqi bamba la nëbb woon ne fàng moo yor yan ba moo gaaw ci yoonu yàlla moo min pey ba xolam du jóg diiwaanu yàlla boor ba defar na ay góor ba ñu mat ba tukkal bàyyi ci biiram góor ñi moom lañ sukkal day wulli wàllu xol ba xol bay xoole kum yër xam bi teeki biir lay boole faal ña nga turu borom bi say kuréel lay riime si kat turu yàllaay ñamoo Baay Faal yi dënn ku ma day fuur ci leeru tur yi Baay Faal amul lu mel ni moom te dootu am dencub ko xam la mbir mu leer la nañ ko xam Baay Faal mbirum yàlla la faddu na ba wéy la yàlla jaayee janna lañ sax ñoom te wéy Seex Ibra Faal am nga lu rëy yaa xotti yoon wi fi raafoon aw ci gëm ak yitte njëlbeen ba tey lu Bàmba ma santaane yow la ko sant yaa ko lor saytaane njëlbeen ba tey lu ma santaane yow la ko sant yaa ko lor xalifa seex bàmba yi luñ liggéeylu bëgg mu sell sa njaboot lañ déglu yaa xàll xàll bi ba fépp sell dalal nga xel yi yaa ñu roof ay jël faal njaga yéeme nga ba yéem ña yéeme yaa xàll xàll bi ba lépp sell dalal nga xel yi yaa ñu roof ay jël seex ibra faal fa nga faloo góor yëggu fa yow fa nga sanc kenn mësta sanc fa yaa ñu xamal fi mu nekk yaay baabul murid leeral nga teelu bi xamal ñu ak murid yàlla na nga gën di yokk faw faw di gën di raw ci suuf si ak ci jaww way naa la man géwél bi ahmadou lamin géwélu maam Cheikh Ibra Fall lañ gën a miin ngir sàkku ndimbal sàkku sag jàpp bu wér jàpp ñu faal njaga ba kenn duñu ruur alhamdulilahi di santaat bamba ngir moo waral ñu mën a téye ñu yan ba di way ba yit di sant ak di tagg jantum njolloor ki siggi set ki sëgg jar ngaa wayal yow miiri jaal yi raamal baabul murid yow la ña xam di yow la ñuy yaatal pey ba ngay bëggee mu ca xadaratul ilaahi doo sa ngéemu ñëpp la xam ñëpp la bokk warmaal di la siyaare boole ko hadiyaal ñëpp la xam ñëpp la bokk war maal di la siyaare boole ko hadiyaal yaa mat a xam yaa mat a am yaay kenn sa melo yi duñ ko gisaat ci fenn amoo morom faal njega seex amoo morom yaa jël joxe wutale ko julli juróom yaa jàpp maanu def ko muy sa weeru koor jébbu lu gën jàng ci yow yaay génn góor sant la war na jéem a roy la war na yaa wane ngir mi woote wax ji wér na yàlla nañuy nangul yàlla nag ñu yokkal pas-pas yi bañ taxoo di way di kennal sa barke lay ñaan Seex Muntaxal Basiir yàgg fi ci barke yàlla may xadir ma fente ay bayit ci waa xabar daas ñooy ndawi Seex Ibra Faal mi ñàkk taas ma fente ay leen i woowe yàgg baax ñooy wër guddeeg bëccëg di saytu war yi seen yitte moo di jëf ndigal li sëñ wax ànd ak yar ak teggin kenn du leen rax am nañu jëwriñ ña am ay jëwriñ ñooña amaat jëwriñ ñu dollante njariñ murit ndigal te sëñ bi moo leen jox ndigal Baay Faal yi nag faaw ñu jóg jëfe ndigal murit ndigal te sëñ bi moo leen jox ndigal Baay Faal yi nag faaw ñu jóg jëfe ndigal ko bañ ñu dal sa kaw digol dem waa ji te jëf li nga rus ci borom jumaa ji te am murit warul di xaar bañ naa ko sëriñ bi bañ na lii nga def sib naa ko ku nee ngi jóg di waxte naa Baay Faal yi te di ko siiwal na ci seen tiktok yi te bis mu set nit a ngi def lu jar rey te kenn kenn waxu ca te muy lu rëy nit a ngi wax ci mbir di ca xuloo ba fàtte war may Touba nit a ngi wax ci mbir mu dul sëñ Touba di ca xuloo ba fàtte war may Touba forom mu tey ñuy wax ci xeeti politique fàtte ka dem jeewal ba ñëw tax ñëpp jag moo tax sëriñ bi jox ndigal sëñ Hamdi lépp lu dul war ma mu jéem koo dinni sëñ Hamdi nag jox na ndigal luy bunt kër Cheikh Ibra Fall ñu ànd noo takku di wër Baay Faal yi sëñ bi jox na leen ay carte ngir ku dajal nga xam ne ñoo ñuy saytu am na ci ñuy solaale ay mbubbi sile kuy wër te yoru ci benn buñ ko ak ñàkk taalibe gi nag moo yaatu lool ba tax lu waaye neex wax te wax ja du ko xool waaye ko wax ba wax ca wax ju lay dugal saahir sa mbaa baatin ba mooy la lay mbugal waaye ko wax ba wax ca wax ju lay dugal saahir sa mbaa baatin ba mooy la lay mbugal kon waa xabaar daa suñu jóg te takku di jëf ndigalal sëñ bi moo ñuy yokk Baay Faal ndigal moo koy dundal nañ soobu li sëñ bi bëgg faaw mu am duñ dëppoo ma lim fi nag li sëñ bi bañ ci dëkk bi ak li mu bañ mu dugg fii ci dëkk bi ma njëkk lim bi moom aaya na ko ay yoon yoon ci biir dëkkam tere na ko waa ji ko def di da làqu tooñ nga sëñ bi bu ëllëgee di nga ko layoog dëkkam bi waa ji ko def di làqu tooñ nga sëñ bi bu ëllëgee di nga ko layoog dëkkam bi aaya na kap boole ca dégraate tere jigéen juy dem ci salle karaté tere na jigéen juy dem di entraînement ci salle musculation du war ma te ku ko def faw nga dajeeg Baay Faal yi kon nañu góorgóorlu di teet tereem yi aaya na it jëm ci jumaa jey sol kilot wala silet baa gene faas ku ko fi def des na la xët lim gën a bañ ci dëkk bii mooy politique wax na ko ñëpp dégg buñ fi politique ku ko fi def fu mën a doon des dafa ñëw an na xabar daa si te des na leen caw ay tere na tux tere na tux tere dugal fi sàngara ku ko fi def des nañu toj sa noona la tere na it jigéen ju def boppam neen mbaa sol gu rafle bay jegeeg yalamu neen tere na xew di tëgg mbaa déglu misik lii lépp nag ngir bëgg rek dëkkam bi jàkk tere na góor guy sol tubéy kiris koros wala mu takk ak ceen ay waay nañu ko rus tere na góor guy sol tubéy kiris koros wala mu takk ak ceen ay waay ko na jaay xeesal ci biir dëkkam bi it bu mu dugg biir dëkkam bi aye na biir dëkkam bi jàngal ay gone lu wuute ak boobu sëñ bi ak foo mën a ne des na la fekk foofa génn Touba sànni ca àll ba nga raw ay kooba aye na bépp xeetu carte bu xaraam ci biir dëkkam bi ku ko def def lu xaraam mboolem luy xeetu jëf ji wuuteeg Touba sëriñ bi aye na ko ngir Seex Bamba dëkk bi nag ba ko borom di ñaanal moom rek a toog amul keneen kum dennal di wax di ñaan ca Matlabul Fawzayni ci ron garab bi sayyidil nii garab yi rek wër ko ak rabi àll moom képp toog di ñaan dëkkam bi sell kon nag du dem ba agsi fii am ñu fi ñëw di jëf lu wuuteeg ak ndigam di di wax lu ñaaw nag du dem ba agsi fii am ñu fi ñëw di jëf lu wuuteeg ndigalam di wax lu ñaaw ku foye sag ndaw mag doon mag mu torox foo dem ñu suufee la nga rus ba netta sax ku foye sag ndaw mag doon mag mu torox foo dem ñu suufee la nga rus ba netta sax ku joxe sag ndaw sëñ bi sëñ bi téye ko defar ko bam jag jox la it barkeel ko te am murit warul di xaar ba sëriñam di ko tere nañ muñ ta sàkkuy njariñam sëriñ ku koy jariñ mu lay jox njariñam sëñ bay jaxate moo ko wax ci ay wayam kon nañu góorgóorlu te jéem a jëf ndigal ngir bu ñu faatu woon ëllëg duñ ñu mugal li ma bi nuñ lépp lu sëñ bi tere la saa boo ko bàyyee léegi mu xëy jariñ la yàlla nañu góorgóorlu te jéem a jëf ndigal yàlla nañu góorgóorlu ci jëf ndigal yi di daw tere mi ndax ñu làq may yi kon waa xabar daa seen a wax ma man ma way yi lay bayit ngir ku ko dégg gana way murit bu xeebu moom i doon dénkaane yi lay bayit man abdoulaat joxaane yàlla nañu doon ñuy saytu war may tuuba ci barke Seex Faal ba bis ba yàlla nañu sëñ bi xëcc daf ñu ci wetam ci barke Seex Ibra ba duñu mës a gëlëm amina amina ne amina ci barke soxna Aysatun Gaawaana Gaawaana subhaana rabbika rabbil izzati amma